gën laa soxla woon. ça va lu bees. ça va bien dinañ ci jaaw. ndax nii. ça va maa ngi si jaaw. sa jant lagal naa ko de. waaw ah, merci ah. ah, bi. waaw mag yaa ngi nii de. Mm. ah yaa mag ji. mag ji pro mm. mag ji du may dégg. <laughs> kii dafa am bës mag jee ne. may wax ne. xamoo. dama koy dégg nii rek. Hmm? kii nekkul ci dëkk bi partout dans le monde. kii nekkul ci dëkk bi ah, nga jàng bi moo dugg ci TikTok bi. Hmm. carboté laaj ci dëkk bi jàpp wala ñu pes wala ñu ko rek. ma kon ma xam. gars yi a dugg ci ci réew mi laa bëgg xam maa ngi nii mag hmm. fait dama nekk samay business. dama kaaw bi di ñëw. donc. Euh, ci yooyu laay dox bu fekkee da ngeen am ay rakk bi wala dem ci kaaw bi wala genre yéen sax xam naa tukki. kaaw kaaw nga laal de. ah waaw ah xooloo ma tam. Hmm, kii kaaw la lañ koy wëree de dugg ci avion yi dem waaw. mais loolu du dara. dafa hmm. mel ni Dakar Saint-Louis rek. yii loolu mer naa koy wax sama rakk bi. góor gi ma reere France. sa rakk ji dafa bëgg. tekki dikkal nañu tekki. yàlla ñëw na yàlla ñëw na. Mhm. boo man moom pare naa moom boo parewul moom pare naa. bañ pare yàgg na dawalal ndongo bi jëlal jëlal jëlal jëlal bosam. sama yaay laa koy wax. loolu tremble nii lan la. ah yow ab yow nga wax de. waaw oui ci kaw di di di kii. je t'appelle ah. amul problème. ok sama yaay laa koy wax. dégg nañu. waaye yow naka waar nag. dën dën mu ñëw muy. waaye yow keroog xool gisuma si kii bi si affaire bi. waaw suñu xool programme bi waaw foo nekkoon. non ñëw ma woon. waaw hmm? loolu. <laughs> <laughs> mooy Dakar dëkk bi. waaye réew maa ñu toj. kii mooy marché de dëkk bi. nee na moom mooy paaseel gars yi dem Europe leen di yóbbu. kii nii ak peon bi kii. ah wax moom de war nga cee mais kii ban façon la ban xeet la. mooy ki mu ngi ni. man Sénégalais bay ni na leen bàyyee. lay wax mu ngi mel jamonoy joxe joxe. kii di mais kii de bàyyi bu du kaboy dina ma jaaxal kii. soriwul ko. déggoo moo fi ne mooy tug daggal ko ne jigéen ñi nee na biye yi moo fi yor appartement boobu ci gaale boobu. Ah. liggéey bi. moo luyee si kër kii. waaw ñoom ma sàmba non kii foo mu jóg say affaire am. ah boo jógul de moom du baax. man naa kii dama jóg si moom. man njaab bi rek ka ma rey njaabam bi may rey koola ah, wuyu saa boo ñëwee nag boo ànd sa waa ji mu dëgër bopp loolu du dégg ah allez eh, man mënuma moom lu bari waay kii rek salaamaaleykum. maman naka mu gis naa la ngeen dugg fii si kër waa ji nii nii. dama fa am soxla. mais leen laa la bëgg a xamal rek moom nee da yóbbu nañu Europe chaque fois ñu jàpp ñu fobeere ay deux millions jàmbur dem kaaw si ay fen yàlla xam na ne sa xaalis dafay jeex day jàpp xale yi di tëdd si biir appartement am yóbbul kenn Europe. kii sërëm laa waxtaanal naa xam na waa ji bu baax yow nan laay jëlee sama or yëpp jaay ko pour waa ji yóbbul ma sama doom ji. nga may wax ay ay bu yóbbuwaat day indi sàcc la yaay bul ko déglu daf may yàqal déglu yow may ma sàcc la gis nga yow da nga ñu war a may jàmm day tëgg xale bi yëpp amee li li amee nga ñu àq dix mille dugg lu sa yoon ne baax na baax na dix mille sonle nga may ma jàmm de te nga ngaa ñëpp sama doom tukki waaw baax na waaw dem leen ñun tukki waaw ñun tukki si jàmm jërëjëf dem leen rek merci te man na tu jàmbur yi bu tey sama óor yi ma jaay ay man fan laa jëm sama àdduna yàqu na amit da nga ba du ne laa daj wax naa ba sonn waaw lan la yow lanati la maa ngi dégg seen munoo xam ay jàmm nga toog sa biti waaw damay laaj lu xew lan lan la maman. kii euh, Amina ki ma boole loon pour mu yóbbu Aïcha Europe dem na gisuma ko. ah waxoon naa leen ko de waxoon naa leen ko quoi dëgër bopp baaxul waxoon naa leen ne kii sàcc la. dix mille gën yedd nag fi mu toll nii yërëm gën yedd yërëma bu ma yedd. ah na de yëpp wax naa la ko. kii dafa luyee jabar luyee gel luyee doom. luy appartement di fobeere ay deux millions trois millions da ngeen bëgg yéen wa ku ngeen gis rek mu yóbbu leen Europe ay nattu aminte bii fu ma koy waxee waaw waxal ak waaw waaw nattu jàmbur yi nag na nga fexe ba fay xaalisu jàmbur teggi naa un million nattu aminte sama or yëpp jaay naa ko ay man yàqu naa yaa ngoo ko xoolee brigade de recherche ak noonu Amina lii yëpp Amina moo ma ko teg lu ma dugg Amina yaa ma ci dugg Amina yow Amina ana waa ji waajal la. eh ñëwal. xaw ma waay. Amina Amina ana ana waa ana waa ji Amina ana sama ay man fu ma jëm. waa ji dem na. bii bi nee na na dafa luwe jabar dafa luwe lépp sama oo yi